Wally Seck mooy doon sama waykat mooy doon sama mooy sama musicien ba la ma leen waxoon rek man benn politicien laa am benn mbër laa am benn footballeur laa am benn benn benn waykat laa am samay waxi reen ak samay waxi daaw samay waxi reen mooy méngoo. nga tuddaat ko woykat bi mu war a génn la 5. bari na polémique ñii ne teel na warul woon génn waroon naa bàyyi ba ci kanam. métier la loolu métier la de mënu koo bàyyi te wax dëgg yàlla ku toog un an joué woo nag un an deux mois joué woo nag war ngaa mën a xam nga Sénégal nag kër bukki la te kër bukki ñàkkul coow bu toogoon sax ba janvier dañ naan non non non yéex naa Dakar moo ngi noonu yaa ma gën a xam. dese bi xam naa la moom laa koy jaale mais papaam wàcc na liggéey nag 40 jours romb na ba léegi fi mu toll sa daanaka ñu ngi waaj dem ci 2 mois bu fi ak le 5 dana dem ba deux mois xaw ma trois mois di ko ñaan suuf oyof ci kawam yàlla xaare ko àjjana àjjana doon wàccu waayam Wally Seck na lii métier la mënu koo bàyyi yow lii ngay def nii mënoo koo bàyyi mooy sa métier man sanab bi mooy sama métier moom yóbbu fu ne ci àdduna waaye loolu mooy métier nañ ko bàyyi mu dem jouer rek ñaanal papaam ñu ñu ñu dikk duñ la teel